jëf mbokku internet je news ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax mbokk yi demal contentement ak mbégte mbokk ñu comme le ko waxee rek wala comme ko diggee rek ak équipe bi dañuy chaque jour moom ngeen doon xaar ñeen mbokk ñu def pour toppal leen indi leen ko jox leen ko ngeen ndax seen mooy suñu le PDG Mansour. di ko ziaraat te di ko ñaanal bu baax a baax yàlla defal ko jàmm ba lépp li nga xamante ni bëgg na ko système bi waaye lépp li nga xamante ni bëgg na si réew mi yàlla suñu borom defal ko ko ndaxte jàmbaar la te jàmbaar dañ ko war ñaanal ba lépp lu muy wut yàlla man ko ko jox. Père Assane bëggee waa naa la mbokk yi tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy géejawaay ginnaaw bu ñu demee fubal ñu nag waa géejawaay fee sa stade amul bari ki bu géejawaay nag dóor ñu dóor yu metti ndax tey li ma gis si marché bi gëj naa ko gis 13 ak Garnier muy 14 c'est la première fois ma gis ko si sama mbokk reporter ñoo ko def mbokk yi ma jël si Lamine ñu fas yéene waxtaan lamb ji nga xamante ni moo war a dox si diggante Ada ak ki nga xamante ni mooy Zoss mbokk yi loolu le 8 la octobre ak waa jàmbaar bu ñu paree foofu le 19 bu leen fàtte ni waa jàmbaar dañuy indiwaat affiche bu mag affiche bu rëy boolisi si tarkindaa bi yal mbin bi Siteu mu war a jàkkaarloog le penseur de Waalo kookoy kan Lac de Guiers 2 mbokk yi yëpp dañ koy dajale waxtaan ceeg Lamine le grand coach Alaaji Lamine maa ngi lay encouragé tey si défaite bi di la nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyu ak ah, dañ leen a mën nag mooy loolu maa ngi lay fay sëriñ di la nuyu au passage di nuyu monde entier di nuyu Sénégal. du nuyu axlu làmb yëpp nga xam tey lii ñu def rek dafa neex nekk sunu biir kafagre bi match yi ñu organiser nga xam ni defe naa ni arbitre di ñoo ko organiser ñoom Malick Ngom ak yooyu maa ngi koy rafetlu bu baax ci initiative bii ñu def lii baax na pour wane ni làmb ñun ñëpp ñoo far rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar maa ngi ñaanal ñëpp axlu làmb ak kudul axlu làmb ak ñëpp Sénégal yàlla na fi jàmm am. defaat. si arbit yi waaye lan la mën defaat si mbër yi rawatina ñi nga xamante ni li ñuy woowee reporté ak yéen coach yi. waaw lii day wane ni arbitre yi tey jii amuñu tey jii ñoom ñoo wàcce seen bopp organiser lay pour ñu wan dañoo bëgg a wane ni ñoom ak mbër yi ñoom ñoo far rek. tey ji xëy na su liggéey bi jotee nag dañuy liggéey. dañuy teg lépp si yoon. mais à part liggéey bi ñoom ñëpp xam nañu mooy loolu ba seen président Babacar. président des arbitres nga xam seen numéro ma ngi nii moom sama waay sama xarit la. dañuy waxtaan en dehors de làmb Malick Ngom ak ñoom ñëpp daal suma ma limee rek damay juum mais lii daal initiative bu rafet la daal. macha mhm. allah am na solo ñu jëm le 8 octobre diggante Ada Fass ak Zos ñoom ñaar gis nga leen seen dañoo sorti kee fekk nañ ko entraînement am kee ñu fekk ko goxam en tant que coach préparateur physique nan nga leen gisee ñoom ñaar. làmb mag ak xale la rek comme li ma doon wax Ada Fass ñëpp xam nañ ne tolloon na si benn dynamique boo xam ne jàppoon nañ lu taxaw si kanamam moo man yàlla def diggante moog Zarko. sunu borom def mu bëre ci mu ñàkk mu amaat koo xam ne ni mbër la moo xam ne nii daa aay koo xam ne ni day dem waaw dafa mën a këpp yalwaan loolu la nit ñi wax zos di mbër kaamil di bërekat tamit su joxee làmb li mu laaj neexut a bëreel ndax mbër la moo xam ne nii day dem day xaar kon Ada Fass na xam ne am na combat boo xam ne nii bu mu ko yàkkamti bu mu xeeb zos na ko jox cër. Mhm. enjeu combat bi ban camp la. combat bi yëpp si Ada Fass da féete ndax Zoss amatul lu muy gañe si làmb Ada moo toll si buntu dem ak nga gis situation yi mu jaar yëpp ak jafe-jafe tolof tolof yu mu nattu yi ko dal yëpp kon tey jii combat bi lu mënti xew ndam rek moo ko jik mhm. mais tamit loolu comme lu gars yi di wax chaque instant ñu ngi jël ay wax di ko jëmale ci kawam mu jugge si defet ay nattu dal ka problème bi bëri ci côté am tey muy bëri ki nga xamante ni expérience moom ci làmb moom ci moom la fekk baax muy jos est-ce que loolu ko indil pression ci de combat. non man jàpp ma loolu ndax gis nga Sénégal gi Serigne yow mii di yor micro sax mhm. am na ñoo xam ne nanguwuñu ci micro bii nga yor di laaj. Mhm. Sénégal soo fi nekkee il fallait nga yor li may wax rek faaw sa bopp bi mhm. nga belende ko quoi. di bàyyi yëpp yu bari muy jàll ndax nit ñi moom fii soo defee ñu wax soo deful ñu wax. kon da ngay sàlloo di def nekk si lu neex sunu borom nekk ci loo xam ne ku la gis duna la acam mais Sénégal moom ci loo mënti nekk ci lu baax ak ci lu bon dañuy wax moom na concentré wu ci combat bi xam ne avenir la làmb am na ci moom yaakaar mu xool li làmb laaj mu di ko def li làmb bañ mu bàyyi ko su ko defee rek dina dégg daale mais bëre comportement la laaj fulla ak fayda rek ak entraînement fulla ak fayda ak entraînement ak concentration bu baax ndax Zoss mooy li ma la dafa bëri ak champion yëpp ñu ngi fiy dégg ci làmb ji yëpp Zoss bëri na ak ñoom kon Ada Fass mënu koo jaaxal Ada Fass boo ñëw te war koo teg ci yoon wane ni bëre mag ak xale la Zoss ku ko gis man bi ma ko gisee forme bii mu yor dafa nekk si forme bu excellence sax daf ma bett waaw ma xam ni kon kii bëgg na combat bi sax kon bëggaan na laa bi Ada Fass na liggéey rek te jour combat ba que le meilleur gagne. mënul dégg daal mel ni Zoss moo gën a nekk ci combat bi moment bi ñu toll. non ñoom ñaan ñëpp ñoom ñaan ñëpp gis naa leen aada ba léegi même size bi ma ko gisee woon laa ko gis mooy yokkul wàññiwul. yokkul dara. non gisuma ko aada ni mu meloon baax na lu mu yokk su fi yokkee rek daa naa ni doom wala naa ni protéine na liggéey naturel ba si kanam. kon forme bi mu yor na la. non gis nga sëriñ muscle daa am foo xam ne nii. protéine dafa teel si booy yooyu. muscle da nga koy liggéey liggéey ko ba nga xam ne dañ naan la da xam ne fii sa muscle yam mm-hmm. su boobaa nga jël ay protéines mm-hmm. mu yokk sa masse mm-hmm. mais ay Ada Fass yi ay xale mu daanaat Zoss lan la war a mën a juyaat si yoonu làmbam lu bari lu bari Ada Fass daan na Zoss day gën a yéeg ci kaw day gën a yéeg day gën a yéeg Zoss combat bi mu jël risque la parce que dafa nekk dafa jël xale bi nga xamante dafa nekk si yoon waaye yaakaar naa wax nga ko léegi yàgg na jël ay ndaanaan di leen ne Zoss tey mu daan Ada Fass lan la woon mën gis nga làmb lépp risque la. làmb moom lépp risque la amul risque. Ada Fass tey su daanaatee Ada Fass mënu yóbbu fenn. na ko bàyyi ci làmb. waaw mën na ko bàyyi ci làmb. ndax Zoss daan na fi nee naa la ay ndaanaan yu ne. Mhm. mën na ko bàyyi ci làmb. Mhm. te xëy na dina gën a lekkaat wërsëgam si làmb. Mhm. combat mën nañ si gis combat bu neex xeex bëre. no ragal naa ni bëre ba mooy ëpp nag mën nañ joosante nii rek mais xam naa ne ku xeef moom làmb benn cong la. kan gën a ñoom ñaan ñëpp ñoom ñaan ñëpp ñoom ñëpp maa ngi gis naa ñu bëre te tamit bëre bu wóor la ñuy bëre de. mais xeex bi day jàpp di taf di palaake mm-hmm. mais booy bi wet gi daa neex. Mm-hmm. adversaire yi mu mujj bëreel ak Zoss si ñoo yem. kan si moo gën a féete xale moo ëpp kattan te Zarko coow lee fi nekk nii rek bërikat la de. Mm-hmm. Mm-hmm. comme bu ñu tegee daal demi daal mën naa jàpp ni daal di nga gis combat bi nga xamante ni moo nar a dàq saison le huit boobu. mais combat bu gaaw lay doon moom. combat bi moom su am rek bëri bi jeex. mu ngi dana gaaw. Mm-hmm. gaaw lay doon. mais ñëpp muy bokk si combat yi gën a métti saison bi. non gëwuma ko de. gëw ma ko de. ndax xam naa ne Zoss moom suñu jàppantee moom lim bëgg a def da koy def. buntu day feeñ te Ada Fass du ko ci seetaan. combat la boo xam ne Ada su ma ko jàpp lu nga digaloon daal su jàppante amee amul lu muy déglu Zoss na bë na bëre si kaw Zoss. kon daal mën nañu xaar daal combat bu neex la wit. waaw combat bu neex la incha allah rabi dina neex sax. Hmm. dinañ ambiance dinañ def lépp ndax Zoss moom ñëpp xam nañ ne amateur yi ko bëgg. Hmm. ah combat ku ko wax wax ay supporters Ada Fass ay jege ñaarem am ñi nga xamante ni dañ koo mere woon tey bu amee message bi ngay lancé par rapport ak loolu parce que xale la bi nga xamante ni moom dafa nekk si yoon bu jugee ñëpp dañuy jug topp ko muy bégal amateur yi waaye di wane lu am solo si làmb tey lan ngay wax gox boobu nga xamante ni fa lay bàyyeekoo pour jëmale fi nga xamante ni mooy arène nationale bi si le huit. di wax nañ ko jàppale rek kon ne nañ daan def te xam ne aada xale la xëy na li tubaab naan l'erreur est humaine mm-hmm. ñàkk mm-hmm. nit ku amul xëy na yii yëpp su màggee ay tolluwaay la rek dina jeex euphorie bi la xëy na ak coow léeg yooyu te xëy na am na jàkkul ne am na ay mag sax yu nekk si ginnaawam mais xale day toll benn moment boo xam ne faa mu nga bàyyi ko mu dem pour xamal boppam mais yaakaar naa ne nag nit soo demee ba am soxna amaat soxna bëgg a dimbali say waajur bëgg ni daam lu ma bëgg kon war ngaa mën a reculer tuuti quoi. Retour des Os mën nañ si xaar tamit lu lu spectacle spectacle lu extraordinaire par rapport ak yeneen sorties yi nga xam ne jotoon na ko def. Zos moom ñëpp xam nañ day neexal moom Zos moom mu neex mu naqari ay neexal làmb suñu dina tuus dina bàkku dina sóor dina def lépp. Mm. dañuy ñaan rek suñ si dinañ dinañ si yàlla suñu borom yóbboo jàmm. Mm. ñoom ñaan ñëpp pare si jàmm. Mm. bëre bëre bi si jàmm que le meilleur préparateur physique tey boo doon teg si ñoom ñaar si koy teg. non non non loolu lépp soo fi nekkee di wax ko day mel ni far la. doo fi nekk naan ay teg naa ci kii wala teg naa ci kële. maa ngi leen di ñaanal daal ñoom ñaan ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm. Thank